Ndiaga Gueye euh, jiite ASUTIC ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di nuyu seen auditeurs yi. di sàkku rek euh, lu ñu waxtaanee fii mu nekk njëriñu askan bi. ASUTIC may fàttali ne mooy association sénégalaise des utilisateurs des technologies de l'information et de la communication ngeen waxoon ne euh, ngeen waxoon boycott li nga xam ne mooy service orange. gannaaw nag moom téléphonie boobu réseau téléphonie boobu ba mu bañee ne du dellu siwaat ci jamono ji moom lay wéyee ba ko ARTP daal di joxe euh, wala sax ba ko ARTP interpellé fu ngeen toll ci mbir moom. waaw maa ngi lay gërëm di la sant si laaj bi léegi nga may ma rek euh, su su may tàmbali ma leeral li ñu waxoon. Mm-hmm. waaw ñun waxuñu woon waxi boycott. Mm-hmm. parce que boycott moo di ne ñu continuer di utiliser réseau orange mais nga toog ne doo communiquer mooy nga toog ne dootoo jënd crédit mooy nga toog sax ne dina may génne sama puce orange si sama téléphone te xam nga loolu lu jafe la ndaxte nit ki mënut toog te du jokkoo nit ki mënut toog te du mm-hmm. boole ko bu fekkee da ngay da ngay def li ñuy wax boycott moo téye sa loxo moo di ne boo koy def benn fan lay nekk ñaari fan après nga jël siwaat ca la nga doon bañ donc ñun ñu xalaatoo ne boykot lu baax li mooy banque sa loxo du lu baax rek moo tax ñu noon askan bi da ngeen di jëfandikoo benn kur benn kuréel bi ñu tuddee portabilité mhm. portabilité mooy képp koo xam ne kontaanoo si si opérateur ni ñuy doxalee bu la neexee nga jóge si opérateur boobu dem si beneen opérateur boobu te booy dem si beneen opérateur bi même numéro bi ngay garder numéro bi du changé bala mhm. koog doo si fay dara bala koog doo am perte de réseau te loolu mi ngi fi depuis deux mille quinze ñu ne woon nag askan bi orange def na loo xam ne kenn mënu ko comprendre kenn mënu ko kenn mënu ko nangu. Mhm. mooy fi nga xam ne askan fi la gën a soxlaa jot ci xare lu bees ba mu tuddee internet moom muy yokk ay njëgam. Mhm. képp koo xam ne gisoo sa bopp ci loolu bàyyil orange dem ci beneen opérateur utiliser portabilité ba daal na bi toxu dañu wax nit ñi toxu buñ boycotté nañu toxu. Mhm. te loolu bés bu nekk nga gis ko fii ñu ko gis ko xam ne day nekk ci benn banque. kontaanul ci service yi muy mu tëj kontam dem ubbi compte ci beneen banque wala mu ne nga gis koo xam ne day luy ci kër kontaanul sa kër gën a mel mu jóge fa dem taxu def feneen donc moo tax ñu ne askan bi képp koo xam ne lii orange def gisoo ci sa bopp gënalu la neexalu la bàyyi réseau orange dem ci réseau yeneen opérateur yi loolu lañ waxoon askan bi. am ngeen firnde ne askan wi fekk si nañ leen ci li ngeen woote ndax gis nañ ne seen conférence de presse autorité yi nekk ci société de yi boobu ñoom si seen euh, jàkkaarloog taskatu xibaar yi ñoom dañoo wax sax ne ñi nga xam ne ñooy clients yi dañuy gën di yokk mbaa am ngeen xayma ni nit ñaa ngi wuyu euh, li ngeen li ngeen woote noonu. waaw société boobu ba mu defee njombeen bi ba pare fi de nekk si jéem nax askan bi di leen fi ñu njëkk a commencé ndax askan bi mooy bi digg janook askan bi naa leen waaw ñu njëg yi leen jox njëg gi yokkul dafa sax wàññeeku xam nga ne kooku moom xel mënu ko nangu boole koog ñuy jéem a nax ak askan naa kat ñun lii ñu def euh, kenn merewuñu si moo tax ba suñu clients yi pertuñ si kenn suñu suñ suñu koom-koom bi ñuy am dara dara dara changé wu si loolu dañ koy wax rek pour li ñuy wax ci français bluff mooy pour ndax mi ñi gën gëm loolu amul mm. mais li am ba am moo di ne ñu bëri gisuñ seen bopp si lii Orange def si lii société bi def dañu fay jóge si moom di dem seen opérateur yi maintenant nag firnde yi wane ne loolu am na ñun fi ne nii mënuñu ko joxe parce que mënuñu ko am. Mhm. ARTP rek moom moo yore chiffres yi yi wane ne yii client jóge nañ si Orange dem nañ si Free wala dem nañ si Expresso loolu chiffres yi ARTP ñoo ko am. Mhm. kon ñun mënuñ ko wax fi ñun suñu taxawaay moo di ne di ñaax askan bi. dañ ne képp koo xam ne kontaanoo si li kii def bàyyi ko fa dem feneen nga toxu loolu daal lañuy ñuy ñaan askan bi te dim naa ne buñ ko defee lii opérateur bi def na si dellu ginnaaw parce que ñoom ba ñuy def lii lan lañ si jublu woon mooy yokk seen xaalis buñ gisee ne jël nañ benn dogal dogal boobu léegi mu yokk seen xaalis mais seen xaalis mi ngi nërmeelu mi ngi gën di wàññeeku ñu buñ gisee ne ñu ngi perte par semaine téeméeri kiliyaan ñaari téeméeri kiliyaan léegi ñu dellu ginnaaw si li ñu def donc lii askan bi moo koy faj moo tax ñuy ñaax askan bi lii saafara lii di ko saafara ëllëg mooy fépp fu ngeen nekk si benn réseau opérateur boo nekk te gisu leen fa seen bopp mhm. kontaanu leen ci ni service bi mel bàyyi leen ko fa dem si leen opérateur yi mhm. ñun loolu la ñuy wax askan bi te loolu lañu bëgg askan bi def ko parce que lu fi ne nii war suñu sukkandiku si autorité yi pour ñu saafara ni yii problème parce que ñun suñu gis-gis mooy que autorité yi li ñu waroon def def nañu ko mooy jox doole askan bi pour ñu saafara jafe-jafe bu ñu am ci secteur télécommunication mm-hmm. depuis deux mille quinze jumtukaay boobu ma lay wax portabilité bi ñu am Sénégal tey sa numéro bu commencé soixante dix sept wala soixante dix huit boo jógoon si si si si réseau orange dem si expresso wala free sa numéro toujours day nekk soixante dix sept wala soixante dix huit dara du si changé donc loo xam ne jumtukaay la boo xam ne si dëkk yi ngi yëpp si àdduna moom la askan bi di jëfandikoo pour xeex ak opérateurs yi nga xam ne dañuy def dañuy def liggéey bu baax te lii orange def dara baaxu si. Mm-hmm. boo xoolee. Uh-huh. boo xoolee fi ñu boo xoolee fi ñu toll nii jot si xarale lu bees boobu ñuy wax internet. Uh-huh. dafa bokk si jumtukaay yëpp solo pour xeex mbas mi. moo tax boo xoolee si àdduna bi yëpp. opérateur télécommunication yi ñu ngi collaborer ñu ngi jokkoo ak lëkkaloo loxo ak gouvernement yi ñu ngi jàppale askan yooyu pour ñu mën a jot si xarale def si jotin bu bu yomb donc lii kii def fa Sénégalais yi soxlaa jot euh, xarale bu bees boobu muy yokk ay tarifam mooy mu ñu indil jafe-jafe askan bi képp koo xam ne nag fa nga ko yaakaare fa la leen indil jafe-jafe kooku deful lu baax ci yow mm-hmm. moo ñu ne Sénégalais yi lii ñoo koy saafara dañuy jóge ci orange dem ci leen opérateur yi. RTP euh, moomule nan ngeen jàngatee taxawaayam euh, gannaaw nag ba ngeen ko gisee mu mel ni ku ouvrir comme niñ koy waxee bras de fer euh, digganteem ak orange taxaw ci temm ne boo moyu sax ay sanctions dina am. nan ngeen gisee taxawaayam. ñu ngi rafetlu taxawaayu ARTP bu baax a baax a baax lii wane na kat ñoom taxaw nañu pour jàppale askan bi lii wane na kat ñoom ñu ngi déglu askan bi ndaxte ba lii amee askan yëpp di potool yi jéggi coow li aate bi bu taxawee ne da ko da koy saafara loolu duñu mënul di ko rafetlu mais nag ñoom ñi si tànku saafara ko si si jàmm moo li ñu wax euh, amiable saafara ko si jàmm moo tax jéego bi ARTP njëkk a def mooy bind bataaxal orange daan ne ko kat sa tarif yu bees yi bu ko jébbal askan bi fi ñu toll ni na ko suspendre na nga ko aj ba si kanam orange tontu ne du ko def ARTP bindaat beneen bataaxal di ko tëkku moo ñuy wax mise en demeure ci français naa ko dama bëgg sa tarif yu bees yi nga xam ne baaxul ci askan bi ci fi ñu toll ni ci xeexu mbas mi kenn warta jóg di nit jafe-jafe askan bi dama bëgg ñu génnee sa tarif yu bees yooyu loolu nag ñu koy rafetlu waa di ko rafetlu bu baax a baax moo tax ñu ñëpp dañu war a fi ñu toll ni dañu war a jàppale ARTP pour si lii mu mu taxaw ne da koy saafara mu xam ne askanu Sénégal ñu ngi ko siy jàppale ñun daal dañ koy rafetlu. du bu njëkk monsieur Guèye ndax yàgg nañoo gis ARTP euh, jox ay sanctions ay daan euh, lii di euh, Orange. gis ngeen ko sax moom bu weesoo téléphonie mobile bi gis ngeen taxawaayu ARTP mu joué rôle am pleinement ci li réglementation société téléphone mobile au Sénégal. waaw démb ak bërki démb liggéeyu ARTP desoon na. mais fi nag wane ne xar xaru xaman kanam boo xam ne ñu ñëpp dañ si war a jàpp pour mu continuer di dem noonu mooy di lépp loo xam ne day indi jafe-jafe askan bi mu taxaw si pour saafara ko mm-hmm. moo tax ma ne bu ñu fi nekk di wax waxi démb nit ki bu amee taxawaay bu rafet eh, jàpp si taxawaay bu rafet bu di ko si encouragé ko ngir ëllëg bu jafe-jafe amaatee aussi mu am tafet taxawaay bu rafet boobu mm-hmm. moo tax ñun xooluñ si li li si ginnaaw li si kanam la ñuy tey la ñuy xool ak li si kanam tey gis nañ ñëw nañu téléphonie mobile ne euh, ay firme internationale ñoo ko yor euh, fii ci Sénégal ndax jàpp nga ne état mën na créer ay conditions yuy mën a encourager nationaux yi ñu investir ci secteur yooyu waaw nguurug Sénégal bu ñu xoolee politique bi ñu taxaw nañu taxaw nañu pour loolu mën a antu ci Sénégal. Mhm. parce que boo xoolee indina nañ fi benn stratégie bu bees bu ñu tuddee mooy yoon bu bees boo xam ne ñu ngi ko tuddee Sénégal deux vingt cinq. muy mhm. wax naka la ñuy mën def pour que Sénégalais yi mën a nekk ñoo xam ne euh, mbirum xarale yu bees yi day nekk foo xam ne mënuñ fa sukkandiku pour am koom-koom. Mhm. boo xoolee tamit ci janvier deux mille vingt bii ñu génn. nguurub Sénégal voté na loi bu bees mooy loi boo xam ne day jàppale ñëpp ñoo xam ne seen xel dafa màcc dañ bëgg taxaw ci biiru koom-koom bi ñu tuddee numérique bi mhm. dañ bëgg liggéey ci secteur boobu nguurub Sénégal nag ñu loi daf leen di jàppale pour ne la yéen kat yéen la ñuy jiital yéen lañuy jàppale pour que ëllëg ngeen nekk euh, le patronat du numérique au Sénégal mhm. donc jéego yi gouvernement bi teg actuellement nekk na loo xam ne ñun ñoo si war a jàpp pour mu sotti parce que bu sottee ëllëg société privée yi nga gis nii seen dina wàññeeku lool ci Sénégal. tey gis nañ ne internet dafa cher fii ci Sénégal Afrique tamit euh, buñ ko méngaleeg yeneen dëkk yi euh, tey nan ngeen jàngatee mbir moomu le lan la état wala lan lañ war a def ngir ñu changé li nga xam ne mooy don bi. Euh, bu ñuy wax seeraayu internet. bu ñu xool ñi nga xam ne dañ nekk suñu ginnaaw mooy yeneen pays africains yi bu ñu dee xool yeneen dëkk yi nekk Afrique da ngay xool ne Sénégal euh, internet cheru fi ne romb na fi ki jëm kanam mhm. da ngay xool ñuy jiitu donc bu ñu méngalee Sénégal ak yeneen dëkk yi nekk Europe wala Amérique nga xam ne fii internet bi cher na dëgg comme ni nga ko waxee dafa cher mhm. loolu nag li ko waral moo di dañ nekk euh, si marché boo xam ne ñi fay jaay. bëriwuñu ñetti dong lañu mooy ci Sénégal Orange Free ak Expresso. Mm-hmm. marché bu mel noonu nga xam ne ñi fay jaay bëriwuñu ñooñu dañuy lëkkaloo seen biir di waxtaan seen biir pour xool naka lañuy fexe ba njëg yi du wàññeeku day jëm kaw ñooñu dañuy waxtaan pour fexe ba du ñu du ñu def concurrence seen seen biir fexe ba du ñu am euh, jongante donc ñàkk jongante. moom moo tax internet bi cher ci Sénégal ba tey loolu nag li koy saafara mhm. mooy nga fexe indi beneen ñeenteelu opérateur boo xam ne am na doole boo xam ne boo dikkee day casser oligopole du marché des télécom moo xam ne boo dikkee lii ñuy doon def moom dootu ci ànd mooy di waxtaan pour xool naka la ñuy fexe ba njëg du wàññeeku mais day yokk rek moom du ci ànd mhm. nguurug Sénégal nag mi koy jéem a li tax ba njëg yi di cher ba tey moo ñàkk ñàkk joxante bi ñàkk concurrence bi nguurug Sénégal mi ngi koy jéem a saafara jéego bu njëkk a def mooy indi fi ñett ñoo xam ne aussi dañuy jaay internet ci Sénégal kook ci 2018 dañ ko defee mm-hmm. waaye depuis 2008 ba tey Sénégal yi boo gis gisul seen bopp signature fournisseur d' internet yu bees yooyu kenn doo leen sax dégg doo gis sax fu ñuy publicité seen i prix ñoom indi dara askan bi. beneen bi si mbirum woote bi muy téléphonie mobile mm-hmm. nguurug Sénégal aussi indi na fii euh, li ñuy wax ay opérateur virtuel pour jox ci benn exemple mooy promo mobile nga xam ne dafa lëkkaloo ak Free mm-hmm. yooyu tamit ni ñu am yaakaar ci ñoom parce que ñoom dañu dañuy jënd ci Orange Free ak Expresso jaayaat donc xam nga nit ki mënoo concurrencer sa fournisseur. Mm-hmm. ki lay jaay mu mu munoo am njëg gu gën a yomb que moom donc ñooñu bu ñu commencé liggéey bu baax du tax aussi njëg gi wàññeeku du tax euh, accessibilité bi gën a yokk mhm. du tax qualité réseau internet bi gën a baax moo tax ñu ne comme nguurug Sénégal te na yii jéego te gis nañ jéego yi du mën a saafara li tax internet bi cher ba sa ba tey mhm. li doon gën a baax mooy nguurug Sénégal xool nekk li fi indi beneen opérateur muy ñeenteelu opérateur boo xam ne am na doole boo xam ne dina mën a bousculer ñi fi nekk. Mhm. maa ngi fàttali ne si 2013 nguurug Sénégal si commencé par président du Sénégal waxoon nañ ne ñu ngi étudier dossier pour xool rek lañu fi indee un quatrième opérateur mooy ñeenteelu opérateur. Mhm. ba orange déggee la lu nekk def na ko lu nekk wax na ko pour xamal ne kat marché Sénégal dafa tuuti marché bi rëyul ñeenteelu opérateur amul fi njëriñ. ba moo tax boobu ba tey 2013 ba tey kenn déggul ñeenteelu opérateur yi mais tey boo gisee ni marché bi di doxee nit ñi wane na kat bëggee Sénégalais yi di jot ci koom-koom bu bees euh, xarale bu bees bu ñu tuddee internet ci njëg gu yomb ci qualité bu baax ak fépp foo dem ci Sénégal ngay jot ci réseau bi il faut mu am ñeenteelu opérateur boo xam ne bu dikkee lëkkaloo bii ñii di def moom dootu ko def. du si ànd ak ñoom. en quelques mots monsieur Guèye euh, nan nga gisee wala nan nga jàngatee lii di réglementation secteur internet si si mim réew. waaw secteur internet euh, yoon dafa nekk ñu ko tuddee code des communications électroniques. Mhm. moom moo yore euh, secteur internet bi mooy moo yore marché bi. ah loi boobu nag ñu ngi ko voté si deux mille dix huit dañ ko dee voté si ñun amoon nag si njàqare si ay ponk yoo xam ne nekkoon na si si boobu xel ñaawoon na si lool. surtout booy xool article vingt cinq article vingt cinq boobu day may ndogal ñii di yi wala autorité de régulation bi ñu mën di bloquer eh, yenn application yi nga xam ne Sénégal yi dañ koy utiliser comme par exemple WhatsApp xam nga opérateur téléphonie mobile foo leen fekk ñu ñaxtu ñu ñuy jàmbat naa woy ñoom amatuñu bénéfice seen koom-koom day wàññeeku parce que Sénégalais yi dootuñu woote léegi WhatsApp la ñuy utiliser pour woote Sénégalais yi dootuñu envoyé SMS WhatsApp la ñu utiliser pour envoyer SMS donc pour ñoom pour que seen koom-koom bana wàññeeku solution bi rek bi koy saafara mooy ñuy bloqué WhatsApp ak yeneen application yu mel noonu ñun si loolu la ñu amoon njàqare waaye nag gis gis nañ ne boobu ba tey ponk boobu kenn appliqué wu ko Sénégal ñu koy rafet lu nag muy lu baax nag ñu koy rafetlu loolu day wane ne Sénégal nekkul si tànku yeneen dëkk Afrique yi. yoo xam ni lu xew rek ñu bloqué internet bi lu xew rek ñu bloqué whatsapp wala ñu bloqué facebook wala ñu bloqué twitter lu nekk mu ko askan di ko dund si jot si xarala yu bees moo tax ñuy rafetlu euh, nguurug Sénégal ni mu taxawee pour que Sénégal yi di jot si xarala yu bees si jotin bu rafet si jotin bu baax. monsieur Guèye euh, yaa jiite ASUTIC ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi lay gërëm di la sant jërëjëf.